maa ngi leen di gërëm bu baax di leen remercier di leen wax ni thème bi ñu ngi ko axé ci li nga xamee ni moo di travailleur bi ñun travailleurs yi par exemple institution sociale yi dañu ni nañuy dugal travailleurs yi ci gestion wu institution sociale yi moo di nan la ñuy doxalee entre euh, euh, sécurité sociale caisse de sécurité nan la ñuy doxalee Euh, nu mu tudd IPRES nañ la ñuy doxalee IPM bi suñu ci duggul travailleurs yi du ñu am danañ am problème bu rëy parce que quand même travailleurs yi am na ñoo xam ni bon c'est la masse silencieuse ni ñu ko mënee wax ci tubaab du ñu wax mais li ñuy li ñuy daj ci seen entreprise ñemewuñ ko parce que les gens dañu ragal ñu dàq leen boo nee man kat su ma waxee dañ may dàq keneen problème boobu du réglé wu nit ñi am nañu ay délégué du personnel. délégué personnel rolam am moo di taxawu travailleur la le délégué du personnel dafa mel na député assemblée nationale délégué du personnel kenn du ko dàqe noonu délégué du personnel yi dañu war weer wu dee ñu dajali ko wax chef entreprise bi parce que war nañu war ci entreprise bi seet problème spécifique yi mais kenn ku ci nekk problème bi nga am ñu recensé ko bu ñu demee réunion avec le chef du personnel ñu ni leen tel tel euh, travailleur am na tel problème ñu fexe nuñ koy saafara mais gisuma ko boo demee ci IPM yi da yeen IPM yi xañ na sax yeen travail yi xëy ngeen am ngeen IPM mais sunu travail yi dañoo am ay IPM dañoo am IPM yoo xam ni boo feebaree wala sa doom feebar wala sa jabar feebar wala sa jëkkër feebar da nga war yóbbu kayit bi ci IPM bi IPM bi mooy fay euh, euh, yow yaay fay genn wàll euh, entreprise bi fayaat beneen genn wàll mais entreprise benn du fay ma ngi dagg ci sa salaire ni IPM la ko yóbbu boo demee ci IPM IPM boobu ni la entreprise ba bàyyi na ma bu yàgg kooku fayatuma donc man ma mënuma la faj alors que boo xoolee bulletin de salaire bi ñu booba dagg nañ ko ñu ni nag loolu il faut mu arrêter boo demee caisse de sécurité sociale ba Salika beaucoup entreprise chef d'entreprise yu bari cotiser lu ñu travail di caisse de sécurité sociale mais loolu travailleur bi bu ko xamee bu ñu la jàngalee mbir mi parce que ñun dañu am ay experts yoo xam ne suñu syndicat lañ nekk mais loolu la ñuy liggéey buñ la dàqee wala ñoom ñu ne la demal kenn cotiser lu la nekk du ma dem yow sa yoon nekku ci yow caisse de sécurité sociale IPRES ak ak ak IPM ñoo la war toppatoo bu ñu paree ñoom ñu topp chef d'entreprise bi mais waruñu waruñu la dàq buñ la dàq ñëw leen ci ñun on règle le problème waaw précarité bi rek moo di li ñuy def rek da ngay liggéey di liggéey ci service ay juróomi at juróom-benni at fukki at am na ñoo xam ne sax ñaar fukki at amuñu benn protection sociale waxuma sax lool mais seen salaire yi baaxul parce que amuñu dara loo xam ne dafa yëkkati relever seen salaire parce que dañ leen def ay CDD CDD buy am buy am ci entreprise wax dëgg yàlla juróom-benni at juróom-ñaari at fukki at kooku dootul CDD CDD boo jeexalee seet boo jeexalee say deux ans trois ans boo ko jeexalee ane ba ca topp buñ la jëlaatee ci entreprise bi taxawal CDI nga dootoo CDD mënul nekk ay vacataire rek ay volontaire rek yooyu yëpp fexeel ba boo yàgg ci boo yàggee ca entreprise ba ñu bëgg la def loolu ñëwal waa IPRES moom laa wax léegi moo tax laaj laajte mooy mooy thème bi mooy thème bi ndax thème bi dañu ni au ñu jël am nañu ñeenti xaw ma juróomi responsable central syndical ñu ñu ñuy wax ne ñoo représentative nee na ñooy ñoo représentative mais ñun gisuñu ci suñu bopp travailleur parce que loo nekk représentativité représentativité defa war nga mën a ñëw nag ci yeneen travailleurs yi nga xam ne yow ak ñoom yéen a bokk euh, euh, tool bi muy centrale syndicale yi nga laaj leen lan mooy seen problème seen problème yooyu ñu jox la ko yow boo demee ca conseil d'administration bi nga xeex ka mais kan xeexalul kenn. moo tax ngeen bëgg ñu auditer. moo tax déedéet ñoom taxuñu lii am IPRES ma la wax léegi moo di cotisation da ngay dem doo fa fekk sa dara nga toog fukki at juróomi at cotiser luñ la boo demee ñu lay fay ay ay wax dëgg yàlla yu amul fayda di la fay miyet wax dëgg yàlla. nga dem caisse de sécurité ñu am benn problème ñun dañu ne nañ def fusion croisée IPRES ak caisse de sécurité sociale ba pare ñun dañu ne nañu audité IPRES bi IPRES bi ay milliards moo fi nekk bu ngeen seetloo ay ay tabax yu bare hôtel yi nu tuddee am nañu ay hôtel am nañu du n'importe lu ne la ñu am te IPRES moo ko waa léegi travailleur bi du ci gis boppam ngeen tëdd ci ay milliards rek di ko séddoo ci conseil d'administration loolu jigéen ñi moom beneen problème la kooku dañu ni jigéen ñi ci syndicat na leen délégué de personnel yi di leen boole te jigéen ñi moo war xeex tontu naa ko léegi jigéen moo war a xeex fexe ba jël place am ci société muy politique muy syndicat muy yéen ñi ngeen yéen ñi nekk ci entreprise yi na ngeen xejal jigéen ñi parce que góor ñi aussi ngeen baal ma dañoo siis jigéen ñi dañ ba pare jigéen ñi ragal jigéen ñi ragal jël ay responsabilité ku ragal jël ay responsabilité nag kenn mënu la responsabiliser